wa awjabu waral nañu aydan ba tey zakaatal fitrati muurum koor wa qadruha te ab kemam maanaam ab tolluwaayam saaxun saax lay doon bi fardi sunnati ci dogaluk sunna day ñëw ci muurum koor asaka moom yàllaa ko farataal tudd ko ci alquran ay yooni yoon muurum koor nag yonent bi ci boppam moo xamle ne lu ñu santaane la lu ñu war a def la te jullit ñépp koo xam ne tëliwoo ko rekk waru gar la ci yow ibnu xamar ne farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sadaqatul fitri fi ramadan alal muslimin kon muurum koor warugar la ci képp koo xam ne rekk mën nga ko buñ nee nag ñépp la war góor ak jigéen gone ak mag gor ak jaam muy wéy daañu leeral ne dana am koo xam ne moo koy génneel boppam maanaam moo ko war a génneel boppam ak koo xam ne nag dañ ko ko war a génneel tolluwaay bi saax lay doon saax nag dañ cee wuute ci boo koy seet lu war a ci kilo am na ñu ne saax matul ñaari kilo am na ñu ne ëpp na ñaari kilo waa màkk yi sax moom daañu dem bay wax ñetti kilo ak ñaari kilo genn wàll xam ne tolloo lay daal moom dafa wuute te bari waaye daa mel ni moom nu muy ëppee ñaari kilo daal dana la jaaxal ndax dañuy wax ne saa mooy ñeenti mudd te mudd mooy nit ku digg doomu nga xam ne nekkul ko tuuti nekkul ku rëy bu defee ñaari loxoom ba mu fees rek mu sotti loolaay benn mudd bu ko defee ba mu yeenti woon nag mooy saa barket ñaari loxo yi ñeenti yoon nag mu ngi ëppee ñaari kilo daal lu mën a jaaxle la moo tax jàpp nañ ne bopp bu ñaari kilo moom mënees na ko sukkandikoo dees na wax itam nag ñaari kilo genn wàll liibar mbaa ñaari kilo liibar kon ku bëgg a def la gën a léemtoo léemtu daal say moomu def ñaari kilo ak liibar mbaa boog ñaari kilo ak genn wàll liibar bopp bu ne loolu lay doon nga xam ne bu dee wow doomu loolu rek ngay joxe bu amee nag keneen koo ko war a joxeel nag nga wàññi ñooñu nu ñu toll nga jàpp ne bopp bu ne ñaari kilo la mbaa ñaari kilo liibar noonu ba mat nag nga joxe ko muurum koor mi dañuy seet lañ ëpp dunde foofa ca koy génne mel na ne bu dee fii moom ceeb lañ fi ëpp dunde kon ku mën ceeb boo defee dugub du doy waaye nag koo xam ne mënoo ceeb boo defee dugub itam mu doy dañoo wutee ci ndax mënees na koo joxe xaalis te bañ joxe ceeb mbaa dugub bu dee waa màkk yi dañuy ubbee ci ne moom sañu su ko joxe xaalis faaw rekk lañ ëpp dunde foofa ca génn joxe mu doora doy boo ko génnee xaalis du doy fii ci waa réew mi ñu ci bari dañuy ubbee ne boo ko joxee xaalis mu doy ndax dañoo bëgg rek ka jox tem loru ca mën caa faj soxlaam ci bésub korite bi te boo ko joxee dugub mbaa it da koy jaay rekk kon nga jox ko xaalis moo gën a noppale ci moom ba ko yonent bi di santaane sallallahu alayhi wa sallam booba wursa xaalis bari woon na lool te teewut moom dafa ràññeel ne dañ ko génnee ci yii te mooy nañ ñu dunde foofa mësta tudd benn yoon wurus mbaa xaalis ña toppoon ci gannaawam ci saxaaba yi itam noonu mel na nekkoon kon soo bëggee lu noppal ki nga koy jox rekk mu bañ sonn ci jaayaat ga mën nga balaa bisub korite bi ñëw bu desee benn fan rekk nga daal koy génne jox ko ko su ko bëggee jaay mën koo jaay ci bis boobu ñu ne suba la korite ndax maye nañu su korite gi desee benn fan baa ñaar nga daal di génne muurum koor mi fi saasa mu teg ci min xaalibil xuuti ci la ëpp ca dundub ñooña alal mukallafi war mukallaf juróom-ñeent yi benn ci ci la ñuy génne muurum koor ma su fekkee ne moom lañ ëpp jëfandikoo foofa moom lañ fa ëpp dunde wala li ñuy wax bele walla lors walla sulut walla mboq wala suunaak saaño walla ceeb walla tàndarma wala reseñ ak li ñuy wax aqit formaas am na ñu ne aqitu am na ñu ne meewum pëndëx la maanaam meewum sunguf la am na ñu ne dañuy dammte bele ba nga xamee ne mooyutut ñu jaxase koog soow nag weer ko ba woow am na ñu ne loolu mooy aqitu juróom-ñeent yi daal luñ ci ëpp dund ci béréb booba rek nañ ca génne muurum koor ma li mu ne war mu kàllaf nag daañu la leeral ne la mu kàllaf mi su ko mënee da ko war a génneel boppam génniwaalal ko képp koo xam ne yoon moo ko teg ab dundam dana ko wax léegi walam tafut du raw nag bu la xasee war moom boo ko yeexee ba bisub korite bi jant ba so da nga amee bàkkaar ci yeexe ga nga koy yeexee te du tax nag mu wàcc la dégam xas gu ko mën rek moom boo ko yeexee ba jant bi so mooy bisub korite bi jant ba so da ci am bàkkaar ba noppi te du tax mu wàcc la ba tey war nga koo génne joxe ko su fekkee ne nag mënoo ko ba jant bi so ci bisub korite bi wàcc na la faw fay ga du la war wa aji sa at doy na bi salafi ci lekk daa am ñu wax ne su la wóoree ne boo lebee génne murum koor da ko mën a fay kon day war ci yow nga leb joxe murum koor am ñu la déedéet ndegam leb rekk la wóoru la boo ko defee nag ci bëgg tuyaaba def nga lu baax rek waaye moom danga mënoo ko leb rek nga koy def yaakaar nga ko yaakaar ak mën a fay du tax mu war la su yaakaarul ak mën a fay nag moom maase nañ ci ne wàcc na ko na moytu di ko leb te xamul boo xam dana ko mën a fayam ndéet nga xam ne rek nit lu mënut kenn du ko ko teg mënu ko rekk wàcc na ko xan nafsihi walis aw man wala ko nga xam ne at xama leel na ko maanaam dundal na ko lusuuman ci lu war mbaa lusuuman ak dundal gu ak dundal gu war muurum koor mi danga koy génneel sa bopp génneel ko képp koo xam ne yoon moo la waral nga dundal ko mel ni sa soxna moom yaa ko war a dundal donte sax ku woomal la ba ëppale la it yaa ko war a génneel mburum koor sa doom ju góor li feek muy mën a wéeg boppam ànd ak sagoom ak man-manam yaa ko war a dundal kon yaa ko war a génneel mburum koor sa doom ju jigéen ba ba nga koy may jëkkër ba jébbal ko jëkkër ja yaa ko war a dundal kon yaa ko war a génneel murum koor jamono yi jaam amee itam sab jaam yaa ko war a dundal yaa ko war a génneel murum koor sa ndey ak sa baay it soo amee te ñoom ñu ñàkk yaa ngi war a dundal ba tey kon yaa ngi war a génneel mburum koor koo xam ne nag yoon waruñu ci nga dundal ko danga koy dundal rekk ci sa coobare bu la rek nga ko ci sa coobare waaye du la su fekkee mënoo lépp la la war ci muurum koor ma nag lenn la nga man da ngay génne li ngay jëfandikoo ci bisub korite bi ba noppi gannaaw ba lu des rek nga génne ko joxe moo xam sa bopp dong la moo xam yaag keneen mbaa ñeneen la ñoo war a joxeel su fekkee amoo loo joxeel ñëpp ba mat bisub korite bi dangay génne li nga jëfandikoo ba noppi lu les nag nga génne ko joxe sa jaan daal di wàcc dañuy wuute ci waxtu wa nga xam ne moom la ñuy ràññeel ne ca la muurum koor ma di ware wax ji gën a nag mooy bis bi mujj rek ci waru koor bu jant ba soyee ca la muurum koor mi ware nga xam ne ku faatu ci njëkk loola nga xam ni waxtu wa jant bay so fekkum bokk ci waa àdduna kenn du ko ko génneel am nañu ne waxtu wa fajar fenkee ci bisub korite bi mooy waxtu warga waaye mën ngaa jàpp rek li ñu jëkk wax ñi wax nag ne waxtu wa jant bay so ca bis boobu mujj ci weeru koor wa mooy waxtu war wa dañu wax ni waxtu war wa nekkul luy tàlli di wéy gannaaw bu jant bi sooyee rekk buñ ci tegee as ndiir bañ ne waxtu sogi moom jàll na gannaaw ba ku judduwaat it la ko war a génneel ndax waxtu wa mu war fekkutoon nga bokk ci waa àdduna la ñu gën a taamu nag mooy boo xëyee ci bisu korite bi bala ngaa dem ci jullikaay ba rek génne muurum koor mi joxe boo ko weexee nag ba julli ji ba ñëw danga nga farlu ci daldi gaaw joxe ko day des ca bëccëg ba ndax li ñu waxoon léegi ne la soo bàyyee bajant jant bi soo te fekk mënoon nga ko da nga deful rekk danga nga ami bàkkaar ci yeexe gi nga ko yeexee ba jant ba so tontaa def na ko jox nag illaa xurrin jëm ci gor yi faqiirin kuy aji ñàkk musliman mbir mu di ab jullit muurum koor nag ak jaamu yàlla la kon ab jullit lañ koy jox jullit bi ca loru rek ñu jox ko ko ndax bëgg mu defare ko bisub korité bi ba bañ a ñee keneen bañ a jógit di yalwaani di sàkku ji ku ko dimbali jamono yi amee teqale góor ak jaam day jàpp ne jaam moom ab sangam moo gàddu ay mbiram kon loruwut kon gor su ab jullit rek te loru ca te mën nga ne mooy képp koo xam ne amul lu ko doo dunde ci at ma te amul métier mu ko sukkandikoo amul kenn koo gàddul di ko ko defal rek na ko mën a joxe asaka ba tey mën nga koo jox murum koor alhamdulillah indeem doon nañ muritu yu luy dal ku ànd Tuuba ëllëg nanu dal